siyaare bu baax tey rafetlu teewaay bu rafet bi nga xam ne teew ngeen ko fii ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne ñoo ngi koy door ah, ci nekk ci njalbeen gi ñoo ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi ak leeral gu rafet gi nga xam ne jóg ngeen ngir def ko ci liggéey bi ah ndogu yi nag euh, fii nag ci ëtti Cheikh Adama Guèye la bokk Serigne Adama Guèye moo meññi sëriñ baare gi mu meññi moo meññi Serigne Maguèye Jama mu meññi Serigne Bara Guèye moom nag lanoo nekkal fii ci liggéey bi di jàllale ab liggéeyam bi nga xam ne da ko naaloon ci yoonu Serigne Touba te buntam nekkoon kër Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké ibnu Khadim Rasoul liggéey boobu nag ci lañu nekk di ko jàllale ak di ko taxaw di ko jëme foo xam ne dana mën a àgg fépp foo xamante ne nii ah, maam yi bàyyi woon nañ ko fi ndogo yi nag mi ngi tàmbale woon ci Cheikh Adama jaar ci sëriñ Maguette Diama moo ko daan defal sëriñ Touba di ko togg njaareem di ko ko yut booba daanaka fukki ganaar ak ñaar lay togg yut ko ko sëriñ bi di ko séddale nga ni naar yi nga xam ne ñoo daan jógee gànnaar di woor seeg moom góor ko daan togg def ko ci super mu yóbbu ko am na bis sax mu yàlla dogal Cheikh Mbacke mi ko daan togg tawat sëriñ bi jox ko jigéen mu togg ko ba mu àggee bi ko sëriñ bi ubbee dafa wax ne ndogu yi nan ko jox ko ko daan togg neel ma yi ndab li soppiku na booba la ko tàmbalee jox góor mu di ko togg ba ni mu fi bàyyi ko mu fi jógee nag ba 1957 la ñu joxewaat ndigal loolu ñu dekkalaat ndogu yooyu tàmbali ko ci loolu nekk di nag di ko liggéey ba liggéey bi yaatu lool ndax sëñ ma gi jaboot na waaye njabootam gépp ñu ngi koy togg boo demee kër sëriñ Bassirou Guèye waa këram ñu ngi koy def boo demee kër sëriñ Modou Guèye ñu ngi koy def boo demee kër sëriñ Cheikh Fall Guèye ñu ngi koy def boo demee kër sëñ Cheikh Adda ñu koy def boo demee kër sëriñ Fallou Guèye mi nga xam ne tey moo fi Cheikh Adama Guèye moom it ñu ngi koy taxawee yàlla na fu ko fi yàlla yàggal ah muy liggéey boo xam ne it liggéey la liggéey cosaan na boo xam ne fi leen ko fekk muy taxawaay bu rafet a rafet ci yoonu sëriñ Touba nga xam ne lu jamono naqari naqari it des na ko góorgóorlu ba wéyal ko ndax ndigalul mag ñi la woon te dara bàyyi bàyyiwuñu fi lu dul liggéeyu sëriñ Touba bi. kon nag lépp lu koy gàllankoor duñ ci mën a wii li koy doxal rek ci la ñuy mën a sotti ah ñu ngi ko ànd nag ak sunuy rakk ak sunuy doom sëriñ Modou Guèye mii ma dendal ah, sëriñ Baarame sëriñ soxna mooy mee toog ñooñu ñoo ñoo yeen njabootu sëriñ bi yàlla dogaloon ñu ànd kook ñoom di ko liggéey ah tey nag ñu ngi ko daan toggi sax ci barab bee ñuy wax ñaari itaas ci at yi weesu yëpp waaye xam nga tolluwaayu jamono ak ni nga xam ne noon la docteur docteur organisé Sénégal tasaare wax ne mbooloo yi nanuy nan ko moytu ndax tawat jii fi nekk moo tax ñu indi ko fii ngir mën a enclavé mën a xaw a sore tuuti ak mbooloo mi ba ñi ko war a taxaw rek ñëw taxawoo ko ci ak daal defe naa boo duggee ci waa ñi fekk nga fa organisation boo xam ne noonu lañ koy taxawee mbooloo mi day daan ëpp lii da daan fees dell waaye ci taxawaayu kër docteur ak seeni ndigal ak ndigalul sëriñ Touba ci lañu jaar ba wayefal ko wayefal it yóbbu gi it nag mbooloo ko daan yóbbu léegi benn oto rek la ñuy teg ko ci ña war a wàccee boole yi yéeg ci noonu la ñuy tax taxawee ah, kër gi nag di kërum ndigal goo xam ne ci loolu lan xam ci kër gi biñ juddoo it ñin fi fekkoon ñooñu lan fi fekk ci lii lii ci lii ñu nekk rek ci lañ leen fekkoon ah, si xaadama gi nag di doonoon mag moo xam ne 1883 bi Serigne Touba woote yoonu murit moo ko njëkk jox boppam ci 1883 mage woon na sëriñ bi fukki at ci saayir moo njëkka a tàmbali liggéey bi moo rakkam Cheikh Ma Babou bi yàlla dogalee ñu bàyyi koo fi it sëriñ bi bi mu jógee ci gànnaar ba ñëw ci yéen mu jógee ci yéen ba ñëw njariñ it mu woowaat sëñ magi jama yeesalowaat ndogo yi mu da ko togg di ko ci loolu lan ko tàmbaliwaate ba waxtu wi ñu toll fu ëttub sëriñ ma gi Diama nekk ña ngi ko fay def di ko yóbbu fa nga xam ne mooy seen buntu ci kër sëriñ Touba ndax moom it dafa tasaare woon ak njabootam ci njabootu sëriñ Touba gépp ndax ñun nii sunu waajur da ko joxoon mu Mouhamadul Moustapha Mbacké jëloon sëriñ Bassirou Guèye jox ko sëriñ Bassirou jël sëñ Cheikh Adama mu jox ko sëñ Mourtala sëñ El Hadj Guèye mii fi nekk tey di xalifab Cheikh Adama Guèye yàlla na yàlla jox koy ay leeram moom it mu jox ko Cheikh Mouhamadou Fadal sëñ Cheikh Fall Guèye kasaalika kon nag ñoo ngi ci liggéey bu tedd boobu di fas ne yàlla may ci ndam ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndal ñëpp ba lépp luñ ci tëwoo ñu am ko ci noonu la kër gi tëddee waaw Baye Fall nag euh, pas-pas la rek ndax boo xoolee kër gi it euh, bu su am na fi ndax sëriñ bi nga xam ne moo nu meññ di Cheikh Mouhamadul Amin waajuróom wu jigéen doomi Cheikh Ibra Fall kon foofu ak bokk am na fi euh, bokk pas-pas it amaat fi kon taxawaay yëpp benn rek la waaw noonu daal mooy nit ki ni nga xam ne noonu la kër gi tëddee ak ndog yi nga xam ne moom la ñuy taal fii waaw kon nag ñoo ngi leeral loolu rek ci pas-pasu kër gi li fi nekk it ñi fi nekkit ay jàmbaar lañu ndax jamono xam nga naqari na waaye kenn ku nekk lim man ci pas-pasam mi ngi koy indi ñu ko boole fas yéene ndigal yi nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi bañ a naax saay ñu nit li nu fi bàyyi lépp rek mooy loolu loolu daal moo doon kàddu yi nga xam ne dinaa ko ci sànni xanaa ma jox la nga. Ah, xam naa yan kàddu yoo xam ne nii ndax euh, jombul dinañ jàll ci lenn ci mbokk taalibe kenn koo xam muy wax ci turu taalibe ci kër yi. Eh, jamono ji kenn ko xam ne eh, réew mi wala mën naan àdduna bi sax yëngu na ak jafe-jafe yi ci nekk ana yenn message wala ay soñño yoo xam di nga ko def ak mbokku taalibe yi nga xamante ni ñoom ñoo aju ci li nga xam moom moo di kër gi la ci surtout jamono fu mu toll. waaw ndigal yi nga xam ne rek moom la kër docteur di joxe ndax ñoom it ginnaaw aar askan wi rek mu leen fi bàyyi gannaaw kaaraange suñu borom ndigal yi ñu joxe yëpp rek ñu sàmmonteeg moom. bañ a violer loi réew mi te ndigal loolu it moo defe naa xalifa général des mourides mi nga xam ne tey ci moom la ndënku moom la jox nit ñi ndax tey ñun ñi dañ fa yóbbu ay dayre waaye soo àggee ñetti nit rek ñooy dugg ki ko yor ak ñaar ñi mu àndal loolu it ginnaaw ki ni nga xam ne ci moom la tënku ci loolu la tënku mun na cee ñàkk bañ a tënku moo tax ñu indi ko fii ngir di sàkku taalibe yi it defe ko def ko ci ak dal ak sàmmoon te def ko ci ak cetit def ko ci defin woo xam ne dana dëppoog nii jamono ji mel loolu moo tax ñu làqu fii nga xam ne mooy kër gu yi ndax fii sax du barabam barabam ma nga ca Daaru Minam ñaari taas foofu lañ koy toggee waaye nag melokaanu àddina ak fi jamono ji toll moo tax ñu ñëw ba fii ngir làqu fii ngir mën koo def ci ak dal akuk wéet ba genn euh, gàllankoor du ci mën a dugg li ci kilifa yi ba it mën a am loolu moo tax ñu andi ko fii defe naa boo masaan ñëw ci këru ndogu da ko fekk mbooloo moo xam ne dana takku dana bari surux surux waaye fii boo fi ñëwee ak dal nga fi fekk ñi nga xam ne ñoo fi munta a ñàkk a bañ a nekk di toppatoo ñam yi ak di ko togg ak ñoom rek nga fi fekk buñ koy yóbbi dañuy tànn ci nit ñi rek lu néew loo xam ne bu demee boole yi ni aj ci kaw danañ ko mën a wàcc danañ ko mën a aj mën ko wàcc mën koo séddale fii fi mu fi mu jëm loolu rek boo ko waral waaw defe naa daal ci loolu la kër gi tënku fi mu toll nii waaw ngir kii euh, surtout jamono ji euh, taalu bi maanaam ak taalu bi nan lañ ko war a mën a jàngatee kàddu yoo xam dañ ci diñ ci soññ lenn ci ñu mel na man nga xam ne ay gone lañ ñu mën a xam ak taalu bi taalu bi démb ak taalu bi tey ndax dañu gis léegi bu sëriñ bi waxee benn kii rek ñaar ñett fu ne ngay gis kenn ku nekk di bind rawat na jamono ji li xew mi du mbirum internet ci ak taalu bi maanaam lañ ci gën a mën a soññee ni nga xam ne mooy euh, taalu bi gën ci bàyyi xel taalu bi taalibe bi moom mu ngi tënku ci gëm ak jëf ndax sëriñ bi sax dana wax loo xam ne du dëppoo sa bakkan waaye day fekk loola moo gën ci yow maanaam nag uh, wu juyoo ci kilifa ci ay kàddu yi nga xam ne wax na ko te wut ak say bëgg-bëgg ñaare lu bari day dama koy gis ci jamono ji wala sëriñ bi wax ba noppi nga xalaat ne nii mu waxee baaxut nii la waroon a waxe loolu du ak taalibe ndax taalibe moom ku ko xam xam ne gëm la ak jëf te sëriñ tubaab mi nga xam ne ci moom la ñu tënku dafa noo waxoon ne nu saxaabatu rasul yi fi ne woon mooy seen bàyyi te loo gis rek mu am ci sunu biir jamono génne woon na ko te teewul saxaaba yi dañ ko rafetlu ànd ci yonent bi yor na Saydu ibnu Arisata ba yàlla dogal ay bokkam jël si ko ne ko doo ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam di doon jaam mu ne tànn naa ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam te doon jaam ñu bàyyi ko yonent bi ba mu yàlla dogal mu nekk mag yonent bi takk sayna bu mi nga xam ne mooy doomi bàjjanam takkal ko ko takkal ko Seydou Ibnu Harisata ñu dox ab diir yàlla wàcce ab aay wax ne falama xadda Zeydu soxna soosu Seydou yor yow yonent bi yaa ko war a denc mu metti loolu yonent bi ndax nu mu ko koy waxee jaaxal na ko ba mu ko ko waxee Seydou rafetlu ko ñu tas sayna bu bàyyi ko bay daam jeex Seydou la yónniwaat moo am takki soxna sa andil ko ko te amul ci benn deng-deng ci ngëmam ah jamono ji léegi nag daanaka boo koy seet ndigal yi dañ ciy tànn la cay seen bànneex ñu jafe ko la nga xam ne xool nañ ko mu diis ci ñoom ñu ñu contesté ko te loolu du ak taalibe ak taalibe moom mooy nangu dogalub yàlla lépp lu yàlla dogal ci yow rek mu neex la nga xam ne mbir mi yàlla moo ko dogale woon nii waaye boo xoolee jamonoy léegi ji taalibe gi doy na war ah, loolu nag dana jural nit ñi ay fitna yoo xam ne ah day doy waar ci ñoom ndax nit ki moom yàlla moom deesu ànd ak moom ci bànneex ndax lépp lay indi waaye day fekk lépp lu mu defit ci xam-xam la ko indi moo tax ñu wax ne yàlla day def lu metti waaye du def lu ñaaw lu mu def rek moo gën ci nit ki ah léegi nag ni ma gisee taalibe gi eh, gis-gis yi bari te ab taalibe wërta am sax lu muy gis daa war a topp ci ginnaaw sëriñam di tënku ci moom rek te fépp fu mu ko jëmalee rek mu jëm fa ngir yàlla waaye li may gis nii ci jamono ji ah dana indi ay jafe-jafe lool ci nit ñi jafe-jafe yii ñuy am sax ci loolu la bàyyi ko ndax fi ma kasabat ay diinaa googu alxuraan wax ne saa bu ngeen demee ba àddina tilim na ngeen xool seeni loxo mooy lii xew léegi rek lii xew lépp ñun ñoo ko xewal ndax tu àndatuñoo suñuy kilifa danoo am ak juyoo ak ñoom te suñu bànneexu bakkan rek nag moo na ko yóbbee ah, jaarunu fanu neex te xaj na fa leen fanu neex gënut ci nu lu neex gënut ci ñoom bu ñu seetee fa gën ci ñu jaarale fa duñ fa nangoo jaar xam nga jaar fa gën ak jaar fa la neex moom bokkut waaw loolu daal bari na lu muy indi lool ay mbir ci tubaab boo paree it mm, dañuy wax jëm ne nasaraan yi it indiwaat ay mbir ñoom it wax jëm ne ñaari culture yooyu ñu bëgg a boole te li tubaab bi di wax di gën a dëppoo seen bakkan dana waral ñu bëgg a mel ne lu contrasté sëriñ si jëm fa neen te yàlla moom ay waxam des ko seet lépp lu mu wax rek da caa war a jaar. boo demee ba ca mujj ga rek da nga gis la taxoon muy wax moo tax daal nit ñi bu ñu mënoon delluwaat ci ak taalibe jàmm dana mën a am ci Sénégal taalibe gi nag mënut te ñàkk ndax yoon wi nga gis mu yoonu murit ñi nangoo doon ay taalibe ñoo ko yor waaw foo mën a bokk ak ku la mën a jur te sag taalibe rafetut nangu woo liggéeyal Sëñ Tuubaa taalibe yi Sëñ Tuubaa yi topp ci yow wala buñ toppee ci bi it bisa ngi ñëw danañ wàññiku waaw loolu moom naan naa la leer yëpp ku nu topp te jëmoo ci sëñ bi na la wóor tànk la nu waaye seen xel ba nga ko wut buñ la toppaa ab diir gis na yow mii li ngay wax lépp sa njariñal bopp a tax li nga leen di laaj lépp ci sa bopp nga ko jëmee léegi nga gis leen ñu wàññi ko ba jaatak te doo xam leen wàññi waaw ndax yàlla bindul nit ñi sànni leen leen bindi teg leen ci yoon yoo xam ne képp ku ku leen mën a mu jubal teg leen ci yoon mu bàyyi la ak ñoom ku leen bëgg a jëmee ci wane yoon it yàlla ji nangu ay jaamam waaw loolu daal laa bëgg ñu wax sëriñ si xam ko ah ñi xam ne ñooy dox ci taalibe it xam ko xam nag taalibe moom di su ko seet li sëñ bi wax it deesu ko seet da ngay xalaat ne rek lii mu wax ndigalul suñu borom la ci man ndax moom laa wotee ndigalul yàlla ci man loolu nag fii ak bàyyi wuñ ko ah, nit ñi duñ jóg ci ay katastrof loolu daal sëñ Thierno moom dolli ci doon dolliwaat ci ak talu bi waaw salaam.